boo consulter texte yi ba noppi bala ngaa commenter interroger phénomène yi te phénomène yi ñaare la ci gën a jege mu di az-zaman wal makan le temps et l' espace l' espace et le temps boo leen dul interroger boo consulter texte yi du la jëriñ tous ndax na ngay poser problème ci siècle bu jëkk ba boo ko ni poser ci kanamu exigence su troisième millénaire ci kàmb mi jëm du sotti parce que mooy doxal temps xam na ko mooy organiser espace xam na ko bu fekkee ni ci texte yi rekk nga compter
asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakatu tahu wahabu yaa rasaq yaa maliki tafta wahabu yaa rasaq yaa kuna ala dayfi ajila aliya min bishi muhammadin hatta waqina dini hatama isri duai tuwa wahmini waqini adawara لكن ولكن بسم الله السماء والأراضي والهواء بها مشارك أنا أجب وسأل بسم الله محمد جل برحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi siyaare ñëpp alhamdu xatim waa turbi waaw ma dafa xatim yow waaw kuy doxal ni moo ni kuy doxal seen ñëpp rek pour mooy lu ab jiw mën di déggee mu di xam laaj ba ba dara njaay li mooy mooy laaj laaj bu am solo waxi Cheikh Ahmadou Tidiane si al Maktoum waxi falsafaam ji falsafa ji mu wax nuñ koy nuñ koy saraa nuñ koy raada xam naa lu am solo daal Cheikh Tidiane daa wax koo bëgg a commenté texte yi faaw nga bàyyi xel espace ak temps bu dul loolu da da nga jullootu ndax yàlla moo moo bindi espace ak temps nga xam ne léegi yàlla daa boole espace ak temps ci mbir yi loolu sax de loolu moom moom la ñuy tuddee ci usul diin théologie ne mooy fiqhul kitaab yi al almastuur wa fiqu kitaabil mansuur man mansuur mel na ne summa ñett tombañ ko moom moom loolu su suufank yi ñoo ci gën a xóotal maanaam bu bu la texte bi newoon suuf si nga dëgg sa tànk dafa nooy te mu dëgër da ngay xam da da daa nekkoon de dafa aaji tawil waaye waaye suuf si suuf si nooy na dëgër na laa tadri nafsun bi ay ardin tamut loolu ab teg sa ko wax alxuraan ko wax te ñu te ñu xam nit di di xam ne mi ngi waaj waaj sëñ soy bu xadasallahu sirra ba mu ba mu desee xam ne ñaari at la wax woo suñu abibu ba mbakk imaan ne ko suma ba mu xamal na ma ne ma ñaari atama de dese ci kaw suuf cheikh cheikh magam di tëdd cheikh Amadou Moustapha ba mu ba mu sëñ sëñ doon wax ak sëñ sëñ abibu ci tukkar ba Mohamed Mohamed muy dox ci tukkar ba daal di fudd fudd ngooga daal di sëñ sëñ mbakk bu suma xamal na ma ne ma su ma amee ñeent fukki at dootuma am kilifa te ñeent weer am ma dese ma am ñeent fukki at noonu xese bi ni ni ko nettalee loolu moom loolu moom loolu moom leer na da da xam ne da xam ne diwa ngi dem ak mu xam ne mi ngi dem yooyu moom te al te alxaan aaya bi sayu aay aay si dana kenn du ko xam ba kenn mënut a xam fan lay daan fan lay dem su su su souvent bi ñu amee seen expérience yooyu nga xam ne kon kon texte bi bi kon li mu wax kon lañ déggut ndax ndax am nañu xam-xam beneen léegi léegi ñu ne ko ko kon kon kon temps ak espace moom moom la ñuy tuddee asiyaq asiyaq almaarifi yi ak siyaqu taarix yi السياق اللغوي السياق التاريخي ما يكون كونتكست historique bi siyaaxu loxo bi moo bi bi mooy contexte linguistique bi nga xam ne léegi naa si xaman soxul lu tax ñu kii woon ndax ndax ndax kii dañ koo naa si xalaat mu soxluñ ko wala boog ay bi bii beneen ay ñu ñëw misaal ca ca alxaan yadullahi fawqa aydihim ñu ne ko service yi nga xam ne ne dañoo xoromalool na yàlla ko nda am loxo ni ni niñ ko nettalee ci ci seen sëriñ ba ibnu ibnu tey mi mu nett mu jëlee ko ca kaxbu nu axbaar ak mu xaatiroon Suleymaan nga xam ne yow léegi léegi loola boo day jàngat nga nga ne ah waaye boo dee jàngat nga ne ci nga ne waaye yadullahi fawqa aydihim di kon kon ñooñu tum naa lay lay si kim si seen dikk na waaw lay si si seen kon kon mooy bu am bu tuddee loxo kon lu du loxo bi ñu xam waaw waaw bu tuddee loxo kon du loxo bi nga xam ñu ne waaw léegi yi nga xam ne nekkut nusuus xatan ya te dañ doon dañ ne nusuus xatan yi ci Alxuraan yu néew la nga xam ne ñoo am xatan xatan yi du subut wér na Alxuraan léppam xatan yi du subut la waaye xatan yi tudd dilaala kooku moom ñëw na ci loo xam ne loo xam ne ne day leer nañ ñi ñëpp xamandoo ko yow nag mën nga ne xam nga ko fekk fekk ne xamoo ko boo yorutu bagage wa bandawu la laa budda min arat li bax si fi xadis ayat koo buti ay arat ay jumtukaay yow daanaka la nga jàpp ne bi xam leer na dellu ci yow muy loo muy lu am solo ma espace ak temps bi looloo tax imaam Shaafi ngi jàng ci imaamu Malik ba noppi dikk yor beneen beneen njër looloo tax imaamu Shaafi ngi dem nekk Irak yor fa mu ngir ñëw ñëw ñëw Égypte bàyyi ngir ma lañ foofa ci Irak indi fi am ngir kon espace ak temps la Madina Irak ak Égypte espace ak temps la waaw espace bi bi mooy mooy Irak ak Madina kii aada yi bokkut temps bi mooy imaamu Malik lam doon wax Madinatu Munawwara benn mooy kaw kaw la moom imam Shaafi yi ñëw ñëw Irak ñu ñu ay taax taax mu ñëw Égypte ñu ñu ay taax taax kooku makaan bi ak samaan bi bokkatu muy am solo digg rek may may may xalaat ci dara xuma tey suba may xalaat ci dara tax tey suba di di xalaat naan te tey al istibraaw seetlu ci médecine seetlu ci médecine fukkaxaa yëpp dañ ci dugg si seetloo ni ba demee ca toile bi ba noppi nooy seetloo moo xam ci ñaar yi ci wàll yëpp fi toll loolu dañoo dañoo waroon a laaj ab médecine ab médecin noonu su mbokk science yi def ñoom am solo lool boo dee jàng fekk da ngay jàng médecine moo ba diw médecine moo dox bu ne la ci médecine wax moo dox bu ne la ca la ca la ca économie wax moo dox bu ne la ca na nga wax ba ba boo ci atte anekan la bëy yi na ci nga xam ne da ngay xam li atte ndax ndax ndax at alxukumaal si faroxon min min tasawur yi boo dee atte dara te xamoo ko loolu loolu mënut a nekk loolu loolu loolu société xadaa yi mos naa mos naa ñu Maroc gars yi étudiants yi di ko laaj na ko ndax ndax ku jàngale ci gouvernement bi sañ ngaa lépp lépp ngir tabax kër mu ne waaw borom xam-xam yi marocain tàng ci jër ne moom waru ko def waaw ndax ndax ndax ndax léegi contexte bu su ba xamu ko waaw contexte bu surtout nafa nafa ab ab jàngalekat bi sonn wute nag Maroc imaam rek maa ngi dégg ku ko demoon Maroc di wax rek liñ koy jàppale gouvernement ba ak buur beeg ak ak ak ak ak gox ba loolu loolu amul Égypte waaw waaw nga xam ne kon contexte su boobu ko ci ci kon daa mat a ba xel xam nga fi tool noonu noonu noonu noonu noonu nuñ def misaal ma indi benn misaal moo xam ne dana gën a jege ok fi ñu toll fi ñu toll noonu dañuy jël xalil xalil di di di di ko tari di ko tari xalil yàgg lool te tey xalil loolu di ci nekk misaal Cheikh Ba moom moom xafisahullah nekk Mauritanie dafay ñëw dongaam yi gars yi wër ko lool fonk ko di di ko laaj ay laaj ñu laaj ñu laaj ko ne ko baraatul ixtira waa ji di di inventé dara da ngay dem bind lu ko ma ma ne mu doon ma ma déposé képp ku ko soxla soxla da lay fay. maa xam ne man mën nga koo jaay ay milliards. bu dee loo xam ne ne ne njëriñ njëriñ la bari na. ñu laaj ko loolu mu ne loolu dafa xaram. ay ay xalaat kenn du ko ku jaay. loolu ci alfiqul xadim la dañoo gis ne ay ay xalaat existé wul. mëne su ko la ci làmb daj lu su mënta làmb daj mëne su ko ko jaay dama ci ci jël mu karam dañoo jàpp ne ay wax ak ay xalaat kenn du ko dëkk ëllëg jamono ji ay ay wax dañ koy ay wax dañ koy arrêté démb rek maa ngi seetaan al jasiira benn ay américain léegi appareil boo xam ne buñ ko këppee ci bopp nit bopp nit xalaat yi dañ koy kii xalaat yi dañ koy détecté mën koo liir te du wax waa ji daan tekk li li li li na ci bopp bi ci appareil bi mën ko jàng ilmul kalaam xam ngeen ne moo ko moo ko fiq ak naxwu ñoo jaxasoo waaw waaw in la rek in la boo demee fiq ko ci fiq teg ko ci te naxamu te te ma nga jóge ci ci ci al kalaam te te la ma nga jóge ci al al falsafa al aristie laaj ma loolu maanaam léeg-léeg dañuy wax ne kat si seen relation lu ñu tuddee alaqa intibatiye maanaam daal relation bi relation bi bi bi ci bu doon ci bu ñu tuddee ci même kalaam la ne mooy aji bind ji la foofa kon moom moo ko lim bind mën nañoo ëllëg bi mën naa bañ a yëg ne sax bind na dara mën naa bañ a yëg ne lim bind ni fee ni ko moo tax moo tax alxaan di wax alxaaliq nga xam ne ne kon kon kon sëñ Cheikh Ba wax ne loolu maanaakat loolu loolu araam na ay xalaat kenn du ko ko jaay kooku day tari xalil xalil xalil lay tari ak yooyu maanaam nga xam ne kon moom Cheikh Ba wa conscience am waayoom aqliyam aqliya taqlidiya la boo xamante ne mu mu mu kallasa boo xam ne maanaam léegi ni ñu xalaate ñu xalaate ca ca téere démb yi keroog bu bu baaxee def ma ne gaa yi ma ne ma ne kenn ki ma defee woon ah gaa yi seen sëriñ bi màggat na xalaat yi dafa màggat kooku xamul baraatul ixtiraa ñaata milliard lañ ci mën a am ndax ne lañ ci mën a am mënoo mënoo koo am ci coono yaram waaw ci xamu ko waaw waaw te te te te fi toll Cheikh Ba day fàtte ne la muy tari ci xarit la muy tari ci benn téere maanaam du xadis du alxuraan waaye moom taqdis na texte ya ba mujj far mënatu ko dégg. suñu sax si fay la suuf la waaw ku ku mat a déglu la ku am solo maa ngi doon def benn benn benn maqaala boo xam ne xam naa xam naa mu nag ma ko yónnee ba ma defoon ci Cheikh Baye di di di àddoo ay afkaaram ak xeet yi ma di supposé ay xalaatam ak di wax ne nag moom persévéré la yàgg rek damaa gis gone yu gone yu bëri di ko tréfor yaakaar yaakaar ne lu lu yees la te persévéré rek la xam naa xam naa si suñu àddu ba xam naa xam naa su ma mënul yónnee yónnee maqala bi daa daa ku yónnee nga xam ne contexte contexte contextualisé moom la suñu Cheikh Tidiane Sy di wax wax waxam ji am na solo bu dee xam naa na na na nga teg waxtaanam wi boole ko bii ba noppi waaw lu am solo la waaw lu am solo la su su bàyyi sama nag ma kaan maa ngi seen sànq ci yor-yor bi ma seen benn salafiste bu sol ab si musu àllaa ji noonu ko noonu ko salafiste yi def salafiste yi saa gis benn ma jël al arabi bi jógee xanaa Liban la jógee xam nga ma jël la nii. du sax la seen majalla ma mar moo xaw ma majalla bu am solo loolu ndax ndax ci misaal bi quatre-vingt-neuf Mauritanie ak Sénégal daa génne daa génne photo Sëñ Abdou Lahad muy dugg ci jumaa ji ak magal militaire yi wër ko mu ne gis nga militaire yi yaa ngi yaa ngi nii xaw ma génn ngir ji ba waxu dara ci gàttal waaye dafa dafa am ko ci suñu benn maqal bu am solo wax ne naar yi bu ñu solee seen simu simu àllaaj yi nga xam ne daanaka duñ ciiblu pàncaay yu ñu wax yu ñu sow nee na bu ñu bu ñëwee Europe tubaab yi dañ leen di ree ndax seen cawar yaa ngi ci ci ci guddi dama seen benn waaye tey yow yow Ndakaaru ji mu sol ko dama ko yërëm tey waaye ana ana ana colo gu baayam yeeg maamam yiw yi ana moom col gu col gi muy sol amul ci amul ci diine moom ma madina ba sala sala ma ma makka makka ñoom amuñu woon ay boobu taxlaay bi ñuy def ca aj makka gi loolu amoon booba de dëgg-dëgg am naa sax ngir ñëpp nuroo naa am déedéet booba loolu moo amoon xekmatuma chony bi moom rek mooy loolu doo nga amoon makka waaw moo tax ca boo demee ca Seyd Saabir Seydina Abdoulaye Abbas ba mu ba mu nekkee di di armal ba ba noppi di di sangu ñu ne ko ah yow da sangu naa mu ne mu ne kilim ji yàlla soxlawu ko waaw waaw ndox amutoon léegi ndox am na yu ay yu am solo la sax ti am xam naa xam naa fukkaay buñ ko dégloo te te te xóotal xóotal kon kon kon dana ubbi ay tonteer yu yaatu ci gëstu bi salaamaaleykum salaamaaleykum